maire ñu ngi lay nuyu. ngi leen di fay bu baax a baax. ñu ñëw fekk la fii ci Darou Mouhty ñuy euh, màggal bisu bi nga xam ne maam mooy maam Thierno Birahim ngeen ànd ak une forte délégation euh, ñëw euh, seeti sëñ Khady sëñ Abdou Mbacké ban yëg-yëg ngeen am tey. waaw waaw sant yàlla parce que yàlla yombalal nañu ñëw fii biñ ñëwee it li ñuy amoon yéene doxal ko yàlla yombalal nañu ko maanaam ziar si nañ njaboot gi fekkee nañ màggal gi dem nañ def ziar yi ñu ci waroon def. waxtaan nañoo sëriñ bi waxtaan nañoo njaboot gi ziyaaraat yi ñu ci waroon def def nañ ko ci e, li ci am solo yi tamit mooy symposium bi nga xamante ne bii e, dajale na ay kàngam yu mag a mag a mag a mag yi nga xamante ne bii seen xam-xam dafa wàcc dafa màcc ci xam àdduna xam état ni muy doxee ak kilifa yi nga xamante ne bii e, dañoo xam peeg xam-xamu diine ñu sëyale seen xam-xam tey ci xamal ñu lan mooy wareefu sunu cosaan ak sunu aada. ci wàllu développement et loolu lan la ci diine andi ci ni ñu ko war a tënkee mu nekkoon loo xamante ni dégg nañ fi ay ay intervention yu am solo dégg nañu fii ay kàddu yoo xamante ni kàddu fàttali la kàddu dellowaat ñu ci yàlla dellowaat ñu ci diine mais xamal ñu ne suñu réew mi euh, dara manqué wu fi war nañoo am taxawaay bii tax li fiy meññ ci wërsëg di daanu ci suuf wala muy génn ci suuf ñu jël ko am taxawaay bu ñoŋ buy tax mun a dellu ci askan bi fàttali rek ni liñ doon wax jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci. jot na li ñëpp bokk ñu jot ci mais mënuñu jënd yow ba noppi ci jotuñu ci lekk ci wàllum actualité politique waxuñu ci dara muy mel ni ñu ngi jëm ci ay élections législatives tey parrainage bi indi na coow ci actu ci euh, terrain politique bi ndax yéen yéen a ngi persister ci bañ segg boobu ñuy segg. Euh, dama lay décevoir parce que simplement euh, bi may jógee suma kër man. di ànd ak euh, président Ousmane Sonko di ñëw di seeti sëñ Abdou tey wax waxi politique andi wuñu foon ñëw delloo suñu bopp si yàlla ñaan euh, def suñuy zikr ñaanal kilifa yi ñaan yàlla taas leen taas ñu ci seen barke moo ñu fi indi woon ñu leen di ñaan rek ngeen may ñu ñu respecté suñu éene bi ñu amoon bu ñu fi ñëwee yam ci wàllu doon taalibe yam ci wàllu jëmmal bis bi yam ci wàllu fàttali borom fàttaliku borom bis bi jëm ci Euh, ni nga xamante ni maam borom Tuubaa noonu la séqe woon ak njabootam euh, maam Thierno Birahim doxale woon ko fii bi mu fi bi mu fi jógee lii moo nekkoon fàttali yi nga xam ne moo ñu fi indi woon ñu leen di ñaan ngeen may ñu ñem ci lii ba beneen yoon ci beneen cadre beneen contexte ñu abordé ak yéen bépp question politique boo xam ne bëgg ngeen ñu abordé ko yéen euh, dans un cadre objectif et serein pour waxtaane suñu réew lii daal moo nekkoon li ñu ci bëggoon a yokk. ngeen ah, du lenn lu dul fàttali ne président Ousmane Sonko comme ñun ñëpp ci njaboot gi lañ bokk euh, ñun ñëpp ay doomu daara lañu ñun ñëpp euh, Sénégal moo ñu ñor ñëw talal suñu loxo kilifa gi xamal ko ne ko ñun li ñuy dox jàmm ak salaam moo ci nekk njariñu réew mi lañ ciy wut. lañ daan wax toujours rek lañ waxaat bu fekkee ni li ñuy dox jàmm réew mi kese moo ci nekk yàlla ñu ko yàlla yombalal ndax ñun euh, amut ci ñun euh, loo xam ne dañ koy dox te mu nekk njariñu kenn wala njariñu ñaari nit njariñu Sénégal donc moo ñu soxal fàttaliwaat nañ ko sëriñ bi tàllal nañ ko suñuy loxo xamal nañ ko ne bëgg nañu mu ñaanal ñu def na ko ñëwaat nañ ci sëriñ Abdou joxaat nañ ko suñu loxo xamalaat ko ne ko ci njaboot gi lañ bokk lépp loo xam ne dafa war njaboot gi nga xam ne mooy meññ ci biir ci biir ci biir daara ji nañ ñu jàppale noonu teg ñu ci place booba ba lu luñ leen di laaj wala ñu leen di boole wala lu ñu xam ne war nañ koo diisoog ñoom ñu boole ñu ci ndax euh, euh, ci ci njaboot gi lañ bokk. lii moo nekkoon su ma bëgg su ma waree tënk rek kàddu yi nga xam ne bis bi niki tey moom la ñu weccoo ak ñoom. Euh, moo nekkoon kàddu yi nga xam ne moom la mën a tënk ne moom lañ moom lañ fi jëlee tey wala moom lañ fi bàyyi tey. ñu ñëw fii ci Darou Mouhty bu sell bi nga ànd ak une forte délégation délégation président Ousmane Sonko ak ñenn ñu bokk ci euh, coalition Yewwi Askan Wi euh, tey ndax mën nga ñu dikkal seen présence fii ci Darou Mouhty rawatina bërëb bi ñu nekk. waaw man nag dama fi ñëw en tant que nitu diine daje fi ak président Ousmane Sonko parce que maa ngi xëyee tey àndulaay président mu ngi xëyee. Dakar kon bokkuñu fuñ xëyee dañ fay daje man sama présence ici fii sama fii lu naturel la en tant que doomu daara waaye en tant que koo xam ni produit mag ñi la parce que ñun suñu xeex yëpp li ci ëpp mooy fexe ba ndono li fi mag ñi bàyyi ñu sàmm ko parce que sunu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul dafa wax ñaari bëyit yu am solo yoo xam ne toujours dama koy fàttali moom sëriñ Touba biñ koy yóbbu dafa wax bayit bu am solo mooy dani sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha mu ni wa an akuna shafian lil mi wa an akuna xaadiman lil dawmi man sëriñ Touba sama sababu tukki bi ñaari mbir rekk ko sabab mooy damay dem pour sauver sama peuple loolu mooy cause bu njëkk bi waaye damay dem pour am martaba xaadimu rasul bu ñu nee sama peuple nag képp kuy nit ku ñuul rek yaa ngi ci biir kon Serigne Touba xeexam du woon xeex pour jullit ñi du woon xeex pour murit yi waaye xeex la woon pour sauver der bu ñuul dafa baax ñu di ko fàttali baatu xawmu la jëfandikoo bi mu demee nattu bi ku ne xam na ni metti na jafe-jafe yim ci am ay jafe-jafe yu tar la yoo xam ni buñ la ko waxee sax da nga yaakaar ni xel mënu koo dékku waaye ngëm mën na koo dékku bi mu ñibbisee Serigne Touba li mu wax mooy ijaal rujuwan yi ilaa xaw mi saadatu na li ma amee ci tukki bi yëpp yàlla na ko yàlla def ay xéewal jox ko sama peuple kon ñun ñu bokk ci ñi nga xam ni dañoo gëm ni ndonal Cheikh Ahmad bàmba mooy ndonal Cheikh Seydi Hadji Malick mooy ndonal Cheikh na Cheikh Sadbu mooy ndonal Cheikh Ibrahima ñas mooy nonal Cheikh Alaaj Dramé bi jur sama baay man kon man sama présence fii dafa naturel ñëw nag sekk si sunu mag suñu xarit Serigne Abdou Mbacke mu nekk koo xam ne mën nañ ni modèle la ci Sénégal parce que day dajale kilifa diine yëpp dajale woy politique yi parce que réew mi ñaari pouvoir yi bu ñu àndee rek defar réew mi mooy le pouvoir temporel et le pouvoir parce que la yeneen yonent bi sa la wax ni ñaari pouvoir yi ñooy defar pénc mooy al mooy boroom xam-xam yi ak buur yi mooy al ulama wal umara mu ne ñooñu buñ jagee rek société bi jag waaye buñ jagul société bi kenn mënu ko defar tey ku fi ñëw di nga fi fekk ñoo xam ne sax bokkuñu ci opposition bi am ñoo xam ne ñu ngi ci pouvoir bi jël fi kàddu am ñoo xam ne ñu neutre lañ faruñu fenn am ñoo xam ne bu jël position jotee ñu jël ko kon réew réew mi ñoo fi daje. loolu ñu ngi ci profité di ci sant bu baax Serigne Abdou di ko ñaanal nga may ma tuuti rek ma wax ñaari baat ci borom daaru parce que borom daaru mooti dafa baax ñu fàttali nit ñi mooy kan xëy na mënuñu wax ci moom lépp waaye mën nañ cee wax tuuti rek doy na sëkk rek ñu ni bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul di dem moom la dénk njabootam boo déggee ku mel ne Serigne Fallou muy wax naan. dañ ñoo jàngal ba ñu ni ar ñu yar ñu ba ñu ni nër mooy borom daaroo ko yar moo ko jàngal te dañuy wax ni nit koo wóoluwul koo wóoluwul jikkoom doo ko yarloo sa njaboot kon mën nañ ni Serigne Touba borom daaru doomu xam la te réew mi nag bokk na ci li tàddeel réew mi mooy ñàkk xam suñu bopp parce que nit boo xamul sa bopp mënoo xam yàlla te xam sa bopp mu ngi tàmbalee ci xam sa magi réew kon jot na réew mi tey ñu xam mag ñi lan lañ daj ba ba ngor des ci réew mi ba jom des ci réew mi fit des ci réew mi rawatina ci contexte bi boo gisee ñun bu ñuy wax du ñu def calcule parce que man dama bokk ci ñi gëm ni ndonal mag ñi man dama gëm dama bokk ci ñu ko war a porter parce que ndonal mag ñi nag mooy dëgg du leneen gannaaw bi xam-xam bi rafetee jëf ji rafet dëgg rek foo gis dëgg dëgg jooju lu mu la mën a coûter nga taxaw fa encore une fois man bo du ma membre Pastef waaye man li ma boole ak président Ousmane Sonko mooy damaa rafet njort ni dafa nekk ci dëkk loolu moo ma boole ak moom moo tax heure bu ñu ko naree euh, naree teg loo xam ni injustice la ak complot la ma jug àddu delluwaat ci sama daara delluwaat ci sama jàkk kon maa ngi woowaat doomu soxna yi ñu xam ni képp ku leen gëmloo ni politique bi dañ ko war a bàyyee benn minorité ñuy doxal réew mi dox di doxal suñu avenir ki leen gëmloo loolu da leen di nax dëkk bii di Touba boo gisee dëkk yi ko wër yëpp ay dëkk la daaru salaam danga koy dégg daaru mooti da nga koy dégg kon looy déggee mooy Serigne Touba li mu bëggoon a def dëgg mooy fexe ba jàngal nit ñi ni politique ak diine amul différence parce que politique mooy lii doxal société bi diine mooy lii doxal société bi ñoom ñëpp ay projet de société lañ kon maa ngi soññaat doomi daara yëpp ñu taxaw temm pour réew mi gëm ni yonent bi tax ñu bind jaam yi sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yahtamma bi umuuril mu'miniina fa laysa minna mbiru jullit ñi ku mu bokk bokkoo ci man mbiru jullit ñi nag ku mu yitteel bokk na ci boo gisee injustice foo ko mën a gis nga dénoncé ko waaye boo gisee lu baax it foo ko gis nga apprécier ko kon ñu ngi ziyaaraat bu baax sëriñ Abdou di ziyaara borom euh, la xalifa de Daaru Muxti waaye ziyaara sunu waajur sunu kilifa sëriñ taxa ñaanal ko mu yàgg fi ziyaara xalifa généraux yëpp parce que man awma intermédiaire wala may am frontière ci këru diine yi fu ma ci dem man naa wax parce que fii ma taxaw tey am naa fi jarbaat yoo xam ni Mbàkke lañ sant yaa ngi dégg te mën nañoo nekk ay xalifa sëriñ Touba te man ku ma xam-xam ne doomu xaddara bi laa xaddara Cheikh Seydi Hadji Malick fa laa bokk ñëpp xam ma ci waaye fu ma dem dinaa nekk en l'aise parce que dama gëm ne xaddara bii ak xadara ba mu jógee benn xadara la ñoom ñëpp xadara yonent bi lañ kon ma ñu ngi leen di sant yéen tamit gis nañ seen taxawaay bëggoon rek <laughs> laaj la hmm. ndax seen jotaay ak sëriñ bi jot ngeen a àddu lu jëm ci wàllum réew mi waaw xam nga ñun suñu waxtaan ak ak ku mel ne sëriñ Abdou heure bu ñu toogee réew mi la ñuy waxtaanee maanaam duñ toog sax ba màggal jot ñuy waxtaanee réew mi ku ñu xam-xam ni ku ñuy fréquenté la moom it mu ñuy fréquenté ñuy waxtaanee avenir u réew mi parce que ñun dañoo gëm ne avenir réew mi duñ ko bàyyee benn minorité ñu koy orienté ci loo xam ne du njariñu réew mi kon sëñ abdu boo xoolee ku mel ni imam Dame Ndiaye moo def conférence bi ku ko xam-xam ni universitaire la lu jiitu muy nekk imaam yaa ngi dégg euh, gis nga ki nga xam ne moo doon def modérateur bi Mbacke Sylla la dégg nga discours bi nga xam ne oustaz alin sàll def na ko fi ku mel ni Basirou saar jël na fi kàddu ak ay boroomi xam yu bari imam Tall Euh, ñëpp ñëpp benn orientation la ñu joxe mooy nit ki da nga war a fexe ba xam sa bopp parce que nit boo xamul sa bopp mënoo xam yàlla man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu nit war ngaa fexe boo doxee ñu xam ni kii ab sénégalais la gëm ni réew mi lépp am na fi dara manqué wu fi li des mooy nan la ñuy fexe ba li réew mi am ñu delloowaat ko réew mi kon problème boobu la Sénégal am tey moo tax ñu gëm ni identité culturelle bi ñuy wax jàpp naa ñi ko war a porter ñi ci jiitu mooy doomu daara yi parce que réew mi bu ñu naxantewul combat yi fi mus a am yëpp doomu daara yi ñoo ko porté réew mi am nañ fi mag mu ñuy wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ba muy porté euh, ba muy teg partem ba nit ñi naan ko Serigne warta politique mun leen politique bu dee baax na kenn waru cee jiitub Serigne bu dee bon na it ñëpp ko war a ba Serigne Cheikh Mbacké moo jël ci xaalisam jox Ablaye Wade mu fondé PDS kon Serigne bu fi toog naan doo politique sa bopp nga nekk.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 à sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.